mooy yalwaan. am nga wéccit. wéccit ñaata. ñeent fukk. déedéet yoruma ko dama ko. ah ñu ma nga dem wuti wéccit. ah. ñu ma téye bi nga dem wuti wéccit. da ah, ngay dem wuti wéccit. waaw. dégg nga. ma jël si ñaata. dama ko ñëwaat. Yeah. Ayo naon ya aku. Ya pun suku dua, ni jualan siap. Naman sini sini sini juga uang ya abok. Gitu, orang pinjam sih. Uwe. Nanti tetap ini apa ya kita papa, papa, papa, hmm. ah, ya papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, Papa. Papa. papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa

jabar su ñëwee ne da ngeen war pare bu ñu génnee ngeen nekk di lekk rek. booy booy non ma dawul woon jóg man ni nga nekk taay bi dinaa waa génn ci biti. waay amul benn génn amul benn génn. eh bata ci biti damay jóg de. ma comment. taalibe lan la looy jooy foro sa biscuit bi foro sa biscuit bi li kenn ko def léegi kenn ko toroxal sa biscuit lan la looy jooy. sama paa bu gàtt bu ñàkk fayda bu dëkk si kër gi. sama nijaay ma dem yelwaan ba am mburu ak suukar ak biscuit ma dugg bi di yelwaan mu jox ma 200 la mu wecc ma jox ko sama bool mu lekk biscuit bi ma yow ma jox juróom. ab mburu bi lekk sama nijaay daal li ma génn rek defati na fi jëye bi ah li ma génn léegi léegi rek defati na fi jëye bi man daal sama nijaay ma jaaxal waaye nañ dugg gis nga man mi maa la koy rek leen dugal dugal. waa nijaay yow nijaay. yow loo def kii yow booy yow ñibbee ba léegi pour la ah, ah, ah, muy wax dëgg la waa nijaay yow yow yow yow yow ngay toog ci buntu ma ma wax ak yow xam lu ma la dama bëgg ah nga bàyyi li ngay def ndax yow kilifa nga kilifa am na yenn yoo xamante ne jàmm eh, eh, eh. ma may may sama jàmm ma wax ma bëgg nga noppi ba ma pare gis nga kii ah ab taalibe dong la day wër di yalwaan te gumba boo ko saraxulee ba kook yalwaanam waaye gis nga ne yow nijaay yow yow yaa ma rusuloo nijaay chaque jour si rusuloo nga may dëkkal waaye booyam kër tamit jo ajegi ma wax nga après booyam kër tamit bu joxee dépense am weeru koor yu mu dee dee dee nga wantu mun a bàyyi xëdd nijaay ban xëdd xanaa dangaa warul bay laaj xëdd yow xam nga nekk nekk kër amul wax naa ko guddi wax naa ko bëccëg yàlla wàccee mu fu may woo Somebody, Guahana.